Youssou Diop yabal na fi ab délégation bu takku dem ba léegi ñu ñu ënd ënd nañ fi ay booy gasoil teew na bi ñu joxee ba bi te tam ñu ànd ko ak ñun ba tey ñu ënd fi yéen yéen machine pompe yu am doole ñu pompe fi ñuy wax cekkeen ak ak ak suñ ko ñoo xam ndox mi ñëpp la génne woon ñooñu taxaw nañ ci waaye taxaw bi tamit ba léegi tamit mën na na am na waaye ta taxaw tamit des na ndax nit ki ne boobu maam doo ko dimbale tey ci ab ak lekk wala ak naan ndax loolu kenn mu kenn mënu ko dimbale nit dëkk ca li ñu dimbale nit dëkk ca mooy ab dëkkuwaay aw yoon ak fu ndox a jaar loolu lañ lañ soxla ci ci koñ bi dafa moos manqué lool te tuba tuba gi ni mu jegee jumaa ji mëtu sax sax xàmmet te lépp lépp lépp lu xaw ci dëkk bi ñun ñoo fi mujjee maam ba ci ndimbali sax daanaka mën nañu ñoo mujje su fekkoon sax xale yi taxawuñ sax maam mën naa ne dañuy fàtti waaye ba xale yi taxaw taxawoo seen taxawaay bu rafet bi dem ba gis suñu Youssou moom it mu taxaw fa mu taxaw xabal leen tamit moom it taxaw nañ fa fa fa war taxaw waaye na waaye na yéen moom seen seen taxawaay àgg na ta taxawaay bi des na mooy ñu dimbali ba bu déwénee duñu wax kenn mu ñu mangal dem bi ñu ñëwee ci commission bi wax seen yitte gannaaw bi ñu waxee ñoom lañ ci def lépp bëgg bëgg li des ñu ànd kook ñoom di kilifa yi joxee ndigal li sa saasa dañoo wàcc yite yëpp ñëw xool si ko bi ñu ko xoolee ñëw fekk nañ fi loo xamante ne bi gis nañ ne ëpp na leen doole ñu ànd kook ñoom kon loolu yaakaar naa ne sant yàlla la waaye du gox boo xamante ñi fi nekk dañoo bàyyi ndiku bay bañ a jéem dañoo jeex tàkk ci li ñuy def waaye nag ndimbal moom da ci fekk loxoy borom li tax mu yomb it liggéey bi mooy ñoom bàyyi ndikuwuñu boobaak léegi ñi nga ànd ak ñoom ñu ngi leen matériel jàpp leen ci gasoil ba liggéey bi fu mu toll nii mi ngi am avancement bu baax yaakaar naa ne fekk suba pompe yi ñu fi wàcce tey ci dëkk bi ci ginnaaw ak ci kër yi nga xam ñoo war a wër bu ñu liggéey correctement ba amul benn dog moom yaakaar naa incha allahu taala leneen la ñuy wax waaye du am ndox. wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan an aalikin muridi